asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi may déglu mbokk àdduna bi si soxo xabat sada moo ñu ak yéen tey expliqué li liggéeyam liggéey si soxo nag si faj la ak bien-être ak jekkal sa yaram bi ndax nit ki boo faje si biir si bi ci tem war nga ko toppatoo ndax li dina moo ñu digal lool ñu toppatoo suñu yaram an nazafat min al iman toppatoo sa sikkim toppatoo sa bopp macha allah képp gis ma bi tey xam nga ne duñ sikkim nii rek foog mu dund lu koy dundal nag foog mu nekk lu naturel lu baax macha allah tey nag maa ngi dem France maa ngi jëm France 2023 le 11 juin grande promotion à Montreuil Montreuil salon bu mag laa fay def salon boo xamante ne bi du saraxu li rek ñëpp laa ci woo ñu fekk si ma su soobee yàlla di ngeen am produit yi baax di ngeen am production wàññi leen prix ku jënd quelque ñu am lu la may yëpp promotion bu mag kon tey li ma leen andi tey mooy huile sikkim boobu maa ngi ko gis ma bépp place bu nekk Afrique surtout France bi nga xam moom laa def promotion bu mag bi huile sikkim boobu nag sama papa laa ko tudd ñu ko Ahmed Biya maanaam Sikkim Ahmed suma Sikkim papa laa ko tuddee boo leen xoolee moom laa diwoo nii macha allah baax na trop am na xet bu neex am na vitamine am na ingrédients yoo xamante ni day dundal karaw bi na tax sa sikkim bi du dam na tax mu gudd sikkim moom ñëpp a ko bëgg fi mu toll nii ak nga xam ko def mode sax kon si kaw loolu nag bu leen xoolee facture bi si biir facture bi lañ nekk nii. gis nga produit muy dawee gis nga ni ñu koy monté gis nga ni ñu koy solee macha allah li ay cent rek laa lay andi comme sama place yi bëri na na nekkul benn place alhamdulilah rabbi alamin dama andi quelque rek pour ñu essayer ko muy France muy Afrique fépp fa la dem place yi soxla di ngay fekk foofu huile bi tuuti na lool waaye dafa efficace kon mbokk yi jëm leen jënd lii bu ma gisee mu ngi jar bu baax suba bu naas def quantité bu rëy incha allahu rabbi waaye dama ko commencé quantité bu ndaw a ngóob jërë leen jëf seen dégluwaay bu rafet bi xam naa ba beneen yoon ku gis vidéo bi nga ko partagé te naaw France sax mu ngi en place yi kon jërë leen jëf wax salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.